dal leen ak jàmm ex mannequin bii di mari louise Diaw bu moytuwut ay photom ak vidéo dina fës ci internet bi loolee nag la ko waral mu mel ni ay hacker wala sax ay pirate kat ñoo ko seet ci infiltré ko daal di dugg ci kontam ba jël ci ay données Marie-Louise Diaw dañoo piraté kontam wala moo ko tey lum ci man di doon jamono ji amaguñ ci lu ñu leer waaye nag bu ñu sukkandiku ci suñu naataangooy diaspora 221 li ñu xamle moo di Abdil boo xamante ni la ko tax a jóg moo di yóbbu bu ay xale yu jigéen ca Dubai maanaam ñuy tëdd ak ay borom alal wala sax euh, borom yi doole ci hôtel yi wala ci avion yi dil boobee nag ba moytuwut moo nar a te kii di Marie Louise Diaw danañ ci dégg turam ngir artu ak te giitu yi ji a dal ci kawam jot na expliquer ay abonem ni moom dañ ko piraté ay personnes mal intentionnées ñoo dugg ci kontam daal di fay def naka sudul noonu loole waral nag ba daanaka ay image bari ak i vidéo yoo xam xamante ni Marie Louise Diaw mu ci woon jot nañu ko partagé ci yenn groupe yi defkatu ñaawteef yi nag yamuñu rek ci daal di dugg ci kontam waaye tamit dañ fa jël ay vidéo yoo xamante ni Marie Louise mu ngi woon ci intimidem yooyu vidéo nag nekk ay vidéo yu doy waar yoo xamante ni neexul la tekk bët naam sax ginnaaw bi Marie Louise jot naa récupéré waat kontam pare daal di bloqué yenn publication yi waaye nag terewul benn yoon li muy gaaw am na ay nit jot a accédé ci kontam boobee ba jot jot fa gis yenn ci ay vidéo